na dip na nut na rawante Tatu raw is ball It is the active boy Virus na rap bay Tatu fi doon symbol Lolo ta public bi it la nu gëm Ku dem puulaar soo doful sax Xam ni peel yu fa moroomu kuddu Galawaay way. leen ma comparé ak ñi waay Ndax dangay wayati na kuy tëkkale FBI ak Digil ya toog buntu kuddu Yaa ma dàqa rap d'accord te pourtant yaa ngi yëg ci kaw montagne